képp doomu jullit fonk nga bés bi muy gàmmu muy juddu Seydina Muhammad alhamdulilah ma ñëw nag ëtt koo xam ne ku gëm Seydina Muhammad fonk Seydina Muhammad muy El Hadj Cheikh Seck ak njabootam man nag mbëggeel moo ma fi indi ak yëg ak ak yiir mooy madame Cheikh Seck mooy ajaa Adama Ndaw mu nekk nit ku baax nit ku jullite nit ku fonk doomu aadama nit ku am yërmande nit ku social mel ni borom këram ma ñëw tey bokk ak moom guddi Seydina Mouhamed fierté nag ñëw wuy su ko def ko surprise bu ma gisee du mun a jaaxal parce que xam naa man soppam laa ma ñëw nag lépp luy xam ne guddi bi laaj na ko rek fekk naa ko fii mooy berde bi mooy yitte bi muy dalal mooy fonk bés bi moom laa gis kon di ñaan yàlla fekke nañu ren yàlla ñu fekke déwén yi bari ngaa luwee chaise mën ngaa luwee nit ay bâche waaye nit ñi kenn mënu leen a luwee waaye nag dama ne léegi nag góor du defar kër jigéen ay defar kër aadama nag bi kay yàlla booleeg le président elle a augmenté elle n'a pas diminué mu yokk nag yar ak njabootam ci baax Ari Eli Diom ndayam moo ko ñaanal ba lii ñëw nag kon dañuy ñaanal Damas ak njabootam ak Alaaji Cheikh Seck képp ku koy yéene bu déwénee yàlla ko gën a mën. ñëw nag fii tey ci Tiwaawan du ne du ne guleet ndax Sœurs Unies bi muy amee ba tey balaa muy am sax ñu ngi doon ñëw Tiwaawan ñun nag ñu ñu gisee ñu toog nii ñooy yaayu aadama Ndaw Euh, ñi nga gis ñi nekk ci groupe bi yëpp saan ay xarit blanc vert yi yëpp macha allah ay xaritu aadama ndaw yu yàgg bi ñuy xale li xale yi naan léegi petit ba grand ñii fi toog ñëpp 40 ans nii moo gën a tuuti ci lu ñuy ànd ak aadama ndaw ba tey waxuma nag ñun mbokk sax-sax yi euh, di kontaan nag di ko gërëm ndax euh, li ma koy wax rek dafa dekkaliwaat li nga xam ne cosaan la woon ci biir famille bi ndax moom maamam mooy taawu yaa ili rayit ak du jóob fara lendoor bàyyi fara jóob bàyyi fara jóob nag uufoon ay rakkam rakkam yooyu sama papa ci la bokk yaayu kii ci la bokk uuf ay rakkam uuf ay mbokkam uuf ñëpp suñu di gëj a gise ba toogaat Adama Ndaw woote Tiwaawan mbokk yëpp dellu siwaat ñun def ñu yóbbuwaat rue 1 gu njëkk ga kon nag loolu mook bërëm këram gii nga xam ne suñu goro bu ñaawul bi di Cheikh Ahmed Tidiane Seck dañ koy gërëm di ko sant di ñaan yàlla luñ fi def ren yàlla luñ fi ñàkk yàlla na ko suñu borom ful ci ñoom te yàlla nañ toog ba di ko def di ko def ba seen doom yi nga commencé jël relève bi dem ba sët yeeg sëtaat yi jël relève bi di kontaan nag ci États-Unis yëpp ndax wax dëgg yàlla bootu nañ ci suñu gannaaw ñun ñi seen yaay ndax ñun ñooy yaay yi wax dëgg yàlla jox ñu suñu cër nag ba mu mat sëkk macha allah ni ko Adama Ndaw defee rek fonkuñu noonu la xaritam yii defee ak rakkam yi jox ñu cër fonkuñu jox ñu suñu cëru ndey li may wax rek tey jii su yaa ili yaayam dellu si waatoon ñoom ñi duñu defar seen toogaay ak Adja Aïcha Rasoul rakkam bi nga xam ne moo sës ci moom rëkk te rëkk ko ñoom Awa Soumaré rek ñu góor ñu ku lim juum baa nga fàtte ñoom Mbaye ak Amet Wade ñëpp macha allah macha allah njabootu ndeyeli yëpp ñu fonk bëgguñu tey nag sœurs unis yii ñun ñëpp ay sœur lañu wax dëgg yàlla ñun ñëpp ay sœur lañu yàkkamti nañ ci waawoon jot ba ñun ñëpp ñu bàyyi ànd ak suñu njaboot nag ñëw xale yi di xamante. xale yi di duggalante li nga xam ne ndakaaru léegi mbokk gi tas na waaye nag yàlla dimbale nañu ba ñu am aadama ndaw ba nga xam ne fu ne nii boole na suñu njaboot ji yëpp kon nag loolu dañ ko ciy gërëm di ko ci sant di ñaan yàlla nag ren jii nuñ fi ñëwee nii ci jàmm ak salaam yàlla nañ ñibbi ci jàmm ak salaam te yàlla na yàlla def ñu fiy ñëw ay ati ati at bay màgget ba xubidaas ba dootuñu mënati ñëw suñu doom yi di ñëw suñu sët yi di ñëw